la jaraw nag kon fecc nga ma noppi waaw ah. ah, kumba <laughs> wallaay agi ma femme neex na la fecc waaw neex na bëgg naa ko ah, bëgg ma siw bala amati nga huit minutes sa taa bëri na de huit doom bëri na yëg nga ne suba de journée sans presse presse ba menu journée sans presse dalaa dégg ñu ne suba la maanaam kenn du bind kenn du wax kenn du joxe xibaar maanaam suba ñun daal duñ xam la xew ci réew mi loolu eh, eh, monde bi dañ cee d'accord. lu ah, ma ci xam déedéet xanaa déedéet. Sénégal dañ ci d'accord journée bi dañ koo jagleel des des kii que ce soit. Hmm. kon daal dañoo ñoo yeewoo rek ne ne dañuy def journée sans presse daal. Ah, xeetu ñaxtu daal la def nee xam naa daa mel ne gouvernement bi leen wax fay de fisc fisc astafurlah li ñuy fay ku ne koo fay mu tudd. impôt waaw justement rakkaaju Zempo googu daal leen ne leen fay den lii xam naa dañoo yoratul. maanaam ñoom nag ñu ne fii ne nii comme yoratul xaalis yu ci bëree ngi tëj maanaam ñoom daan dañ naan duñ hmm. la presse di dee. ah d' accord presse bi xanaa neew fi woon jamono yu Macky Sall. amoon na. presse bi neew fi jamono yu Macky Sall. li ma jaaxal mooy jamono yu Macky Sall réew mi ñëpp doon dund lu métti suuf ñoom ñoom ñu ngi woon gunaanaat boo leen waxee ñu ne réew mi tout ça va bien. ma laaj la ndax. presse bi newuñ fi avant Macky très bien et comment ça se fait que on ba tey waxuñ benn ci lempo ba gouvernement bi ñëw ñuy wax waxi manifestation de ñaari réflexion la suscité. bi njëkk mooy dañoo yab. presse bi dañoo xam nga ci ban fànn. xeex dafa bëri manière. Mm-hmm. te presse dafa manière. te ci ñi ci ëpp ci ñoom dañ doon refléter li réew mi di wax mm-hmm. maanaam dañuy wane dong li askan bi di wax mais ñi ñi ci ëpp dañoo jëloon dañoo jëloon position ñi nga xam ne euh, ware nañ fi ñu féete te wuuteeg nguur gi mm-hmm. du gis nga leen doon daal maintenant pour revenir à la à euh, deuxième deuxième réflexion bi leen rek la Diop mm-hmm. lañu wax yeggale jubal ak jubbanti très bien maa yaa ngi ci réflexion tam Macky Sall de boobu jub ak jubbanti jubbanti xamul woon non jamono jii ñu toll laa ah, ah. jub lañ wax jubal jubbanti voilà non dama ne deuxième réflexion bi fan lañ nekk du jub jubal jubbanti waaw très bien lan lay wone day wone rek ne ñoom jubuñ kese <laughs> Hello de suñ ko diggoon ci ab jub fayoon nañ lemp bu yàgg ba bés buñ leen fëqee seeni poos duñ fëq amuñ fuñ bind quelque part ne lu jubbanti moom lu dëng rek lañ koy def waaw maanaam booy jubbanti lu jub du ko yëg waaye booy jubbanti lu dëng waaw dina ko yëg de waaw enfin ah, bref man sama problème mooy mhm. presse bi mi ngi fi woon waaw wal Walfadjri tëj nañ ko fi un mois ferme te taxul mu am journée sans presse benn man ko sa baaraam foofu. ñaar tëj nañ fi Pape Zale Niang. surtout loolu. amul journée sans presse. ñu tëj fi Pape Ndiaye Missile. très bien amul journée sans presse. ñu tëj fi Coro Mandela Michael Jackson. ndeysaan. amul journée sans presse. ñu brutaliser fi ay journée ay journaliste ci jamonoy manifestation yi mm-hmm. amuñu journée sans presse waaw ça veut dire que presse bi daal ñoom ñun considéré seen bopp mooy ñan patron de presse parce que ñoom ñooy am problème ñu doog a mën a assister à ce qu'on appelle journée sans presse léegi bu fekkee reporter journaliste chroniqueur wala muy technicien wala quoi que ce soit ñi nga xam ne ñoo tax presse di dox ñoom daal mm-hmm. bu ñu amee jafe-jafe ak yi problème mm-hmm. du tax kenn gën a def journée sans presse te li gën a neex ma doole la ko. Eh. muy tey jii ñoo ñoo ñee nga xam ne ñi ngi liggéey ci presse bi. Eh. xam nga neexu leen. wallaay neexu leen. bi mooy dégluwuñu sax ñi nga xam ne ñi ci biir presse bi. Hmm. jéggal leen ma dama doon tissu yi wallaay ajube eh, femme revenons ko neex laa koy centré ñëwal. <laughs> léegi. waaw suba journée sans caresse go sans journée sans presse li mu doon caresse moo tax am doon journée sans caresse journée sans presse euh, boobu. su amulee wala boobu ñoom buñ toogoon à vie sans tëjee di seen presse nga yaakaar ñun ñun duñ amati information. waa presse bi wala man wala waa Sénégal. dëgg la sax dëgg la dëgg la yooyu yëpp dina ci baax daal xam naa xam naa xam naa xam naa presse bi dina ñëwaat waaw dina fay leen bu soobee yàlla loolu moom s'en fout frère jala ci leneen la langage bi leen di génne lu nekk te loolu baaxul nañ leen ñaanal suñu borom yàlla suturaal leen tawfeexal leen wërsëgal leen bañ mën a delloo seen xel fay leen

man rek lañ yaakaar je pense que je vais te défier. c'est vrai du ñàkk du ñàkk worma du ñàkk du ñàkk fayda déedéet. parce que man loolu tax am li nga wax ne xam na tax mu nekk réflexion bu ma kii parce que damay gis ay nit yu jàng fi ñu war a jàngee jël sest wala nangam ak nangam xam code de la de l'éthique et de la déontologie mais bu ñëwee ci presse bi duñ ko wane parce que dañuy bëgg lu neex seen patron de. de presse c'est normal mais dinaa am benn famille wu 10 personnes bu ma liggéeyul man ci bopam, je serai oh, c'est la société qui va me rejeter en premier lieu booy liggéey ci presse bi gis nga prestige yow yow man mi yorul dara rek bi ñu sooy génn télé pour yow yaa ngi nag li ci piram. dinañ ma yakar ba nopi, mu leer mané, amna am fay et je je lui je je lui fais la tête mais non je vais pas le faire. parce que ah. parce que xalaatuma nit ki de. qu'on se dise la vérité Sénégal sax dotuma ñor. su tourner ba khalat ñi ma ñi nga xamné ñom lay laay dundal rek. kenn ñoratuma kon looloo yàq presse bi loolu rek ñu ci bëree ngi wax waxewuñ seen kàddu boobu dañuy waxee li bëgg li nga xam ne moom la seen patron de la presse ni bëgg loolu je pense que bokk na ci li nga xam ne mooy c'est déplorable l'éthique et la déontologie ci domaine boobu noonu enfin bref leer de wóor daal mooy bu ñu defalee journée sans caresse astafurlah bàyyi sama tànk bi ngay caresse yow tamit nag ah. journée sans presse bu ñu ko defalee suba tamit du ñu am information yi ñu doon man rek suba suba Sénégal li Je leen war informer bëri na trop. wallaay Hachim te ngoon ak léegi li ma récolte ci information war ko jottali Sénégalais kenn xam nu mu ça veut dire que avec ou sans elle mooy la presse ñun avec ou sans elle ñun danañ les Sénégalais avec ou sans leur existence Sénégalais dinañ jot xibaar yi temps parce que ñun Sénégalais la surtout la jeunesse digitale on est engagé à informer les Sénégalais à temps réel juste à sa valeur avec des éthiques et des déontologies <laughs> dernier cas ñun les Sénégalais. Ah, ah. kan joxe information yu ñun et sa femme. très bien ça. iliya ndammiñu daar Bamba Ñas maam Jaara gi euh, maam Cerno euh, oustaz Ceeb xam naa ah ñaa sa jóogu Assane Mesere ah euh, surtout Assane dañ lay jox ay information yu leer te doo fay dërëm correction rek ngay fay te boo amee fi day yomb kon rek ngay laaj kon incha allah ba nuyu moom happy birthday to you. joyeux Noël wallaay <laughs> ajib la presse sénégalaise. dana yéeg ñoo xorom rek leer.